fa yaa xayu yaa qayuumu yallaahu rabbanaa asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokki taalibe ci ndégalu sëñ Babacar Sy Mansour xalifa général des Tidianes yàlla na fi yàgg te wér sëriñ Maodo Sy njabootu maam Cheikh Seydi Hadji Malick gépp jamaatu Nuur al Sunniya ñooy amal guddi jotal sa yéene jëme ci liggéeyu jumaay Tiwaawan bis bi ko jàpp samedi

am nga yéene dugal sa loxo ci liggéeyu jumaay Tiwaawan xeebunu dërëm ba milliard ñi ngi woo jigéen mag ak ndaw ak képp koo xam ni am nga ci yéene mbokk yi bis baa ngi noonu samedi 5 août 2023 bu 21h jotee ci télévision Futur Média ak ci télévision yi Sénégal gépp bàyyiwunu kenn bàyyiwunu fenn ñu ñaanal sëñ Babacar Sy Mansour ak njabootu maam Seydi Hadj Malick yàlla noonu dund ba ubbi jumaa ji ànd ceeg moom ay ati at te ñépp fekk ko incha allah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu إلى الله قربتي